xamante ni xale la boo xamante ne eh, ñëpp ko boole bëgg ñëpp ko boole jox respect te yow fépp fu ñu la gis nga taxaw fa rek sa présence rek kon kooku am na lu mu doon ci yow am na cër bu mu doon ci yow lan moo waral tey teewaay non moom sama doom la xam nga dafa wax wane Sénégal yëpp yaa papa jot mooy sama papa bés bu ñu may maye moom moom moom moom may xam moom loolu wax na ko ci télévision yëpp donc bésam bi su ma ñëwul damay damay mérité carton rouge mhm. lu mu xat xat xat bàyyi naa fa bagage yu studio ba. bàyyi gars yi ñu yëggale ma ñëw naa ñëw rek def fi benn trois quatre cinq minutes rek ni nga ko waxee rek Oumou Sow sa doom la defe naa Sénégal njaay yëpp léegi loolu dootuñu ko laam-laamee yow lay tiitaroo yow lay ndamoo euh, papa tey euh, muy sa doom nekk ci showbiz bi 25 ans de carrière mosuñu ko dégg ci lu ñaaw mosuñu ko dégg ci lu bon euh, tey en tant que pap ban ban ban ban gis-gis nga am ci carrière ki nga xam ne mooy sa doom Oumou Sow. bon xam nga carrière moom yàlla moo ko yor. mais jikko moom euh, borom moo ko yor donc am nañu fierté ci li nga wax léegi kenn dégg ko ci dara mu ngi toog jàpp njàmburam donc loolu loolu rek euh, moo lay wan ne neex naa jur ba neex naa gunge voilà. Euh. Eh, question boo xamante ni eh, dama la koy boole yow ak sa doom waal yi. Mm. Eh, ci dëj bi nga xamante ne ñu ngi fa jugee barke Demba Ndiaye muy Tilala Fall. Mm-hmm. te sa doom bëggoon ko lool moom tamit mu sopp ko mu nekkoon kilifa ci moom. Mm-hmm. mu génn àdduna tey nan nga dundee loolu. waaw xam nga kulli nafsin saayixatin ci noonu la lañu wax. Mm-hmm. bakkan bu ñam dund di dina ñam dee. Abdourahmane Fall Tilala nit ku baax ku oyof yàlla daal moo xam mais ah amul kenn ku mën a wax gaaf ci Abdourahmane Fall Tilala bëgg na nit respecté na nit te am na lu mu gëm te li mu gëm noonu moom la gëm ba yóbbaale ko ndeysaan te bi muy dem ba doon dem euh, ziyaare ji dëkk suñu maam bu sell bi ñu koy wax maam jaara fa doon dem eh, yàlla moom ko ci yoon bi dañuy jàpp ne rek eh, mission ba la doon doxi mission wu lislaam te li ci gën a metti moom la ak soxnaam ak nag bëkk néegam bu ko gëm bu ko bëgg lool ñu koy wax bu fay wallaahi ndeysaan ku gëm gëmti la laa mais yàlla du juum du jaawat la ñi mu war a boole rek la lay boole eh, ñoo ñoo bokk benn bés xanaa yàlla eh, ñu ngi koy ñaan rek mu xaral leen àjjana ci yi gën a kawe vraiment ñu rëccu bu baax liñ doon def fii mais ba Tilala moom vraiment wax dëgg yàlla nit ku baax la ko oyof waaw et puis am ak jàmm ñëpp nag ndeysaan ndeysaan am nañ njort bu rafet lool ci moom Oumou Sow daal di nga xam ne mooy violence faite aux femmes ci 25 ans de carrière am Papa Thione defe naa Mama Kiné tey bu ñuy jël exemple ci femme épanouie ci ci seen biir au sein de leur ménage moom duñ ko ci génne ndax gis nañ macha allah jigéen bu jàmbaar la waaye it Papa Thione macha allah dangaa toppatoo suñu yaay ji ban message nga am ci góor yi nga xamante ne dañuy noot seen jabar yi. waaw noot jabar moom du yoon noot jëkkërit du yoon doom du yoon doom mais xam nga. affaire nag affaire vice versa la am na góor yoo xam ne mën nañu yor jabar am nañu yërmande comme am na góor yoo xam ne dañu bon am na jigéen ñoo xam ne ay sëykat lañu am na jigéen ñoo xam ne dañoo mën a jouer xam nga affaire yi moom xam nga rek parce que moo tax ku nekk yonent bi nee na bala ngay takk jabar na ko set te yonent bi lu mu wax dëgg la dafa ne sax bala ngay jënd fas daamar takk soxna da nga ko seet te seet bi du waxul ay seetu pitaaw yi de. non non non bu wóor ay góor yàlla yu wóor ñu ne la duggal wala bul dugg wala bala ngay dugg génneel sarax nangam nangam nangam parce que doomu aadama boo gis rek mm-hmm. am na rabu àll bu mu méngool nga yow bu fekkee ne man sama sama biddéew mm-hmm. yow ma takk la yow ngay gaynde sa biddéew di gaynde njaay mais danga may lekk ah ah. benn question. bu doy boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi xaar. feebar bu doy waar dugg ci réew mi muy coronavirus. Mhm. te ñu ngi xaar nga def ci communiqué yow. lan nga ci mën a wax da nga ci war a bind way ci. wala da nga war a génn lancer message bu am importance ci feebar boobu nga xam ne dal na ci waa bi yëpp. waaw gis naa Diouf Sarr di lancer eh, eh, appel aux artistes ah su ma ci boolee day ma bind. woyoon nga fi paludisme de. waaw su ma ci boolee daal ma bind. mu woy xam nga xam nga eh, li li ma suñu borom du morom benn pepp suufu bu coronavirus rek xam nga mu yëngal àddina bi école yi tëj. ñu ne na ko ne toog sa kër ah gars na ne nañu xoolaat bu baax mbir yi. xam naa ne dañuy xaar Diouf saar mais xam naa ne fii nga taxaw nii bu ma la ñaanoon di nga ma ci may benn di nga ma di nga di nga ma di nga ci ñamal tuuti tuuti. non damay lànk ba kon mu yombu ci Diouf Sarr. <laughs> non dama bëgg nga may ñu bonus rek. kon mu yomb ci Diouf Sarr bàyyi rek ba mu wooma. <laughs> ok. chers internautes Dakar Buzz ah, ba tey ñu ngi fii ci Grand Théâtre ñu ñëw rek seetaan li nga xamante ni mooy playback bi nga xamante ni soxna Noray Tilala moom la doon def léegi nii euh, soxna si maa ngi ziar. Ah, maa ngi lay delloo ziar waa Dakar Buzz. Euh, bu yàggul dara ñu daal di gis euh, sa sa kilifa sa sëriñ sa xarit sëñ Abdourahmane Tilala Fall daal di wàññeeku ñu la koy jàll bu baax ginnaaw ba ñu naam am nañ sax njootu bu rafet si moom ndax ci ndigal rek la nekkoon ci ndigal la mës a dox ba suñu borom daal di jël bakkanam dèjà euh, tey ma dégg buggoon rek nga ñëwaat sa diggante Oumou Sow gis neen mu daal di ubbee euh, li nga xamante ni mooy euh, way waaye def ko jàng ah ay jàng Baye Fall na Oumou Sow tamit ku ko xam-xam ne ni taalibe Serigne Fallou mbaake la waaw. waaw jërëjëf loolu sawar naa ci tontu bi ngir ñun ndigal rek moo ñu fi indi sëriñ bi moo ñu jox ndigal ngir ñu ñëw teewal bi. yàlla dogal na soxna Oumou Sow nag di nit ku baax di yaay Fall bëgg sëriñ bi nag te loolu euh, loo loo mën a dégg rek moom bëgg sëriñ bi mooy li ëpp doole tamit ci moom te loolu xam nañ ko bu baax muy sunu mbokkum taalibe mu bëgg sunu sëriñ loolu nag muy Cheikh Sërif Abdourahmane Fall ci laala xaadimul xaadim yàlla dogal bi yàlla dogalee bis bi di jub si mu ñëw ba fee Nord Foire fekk ko fa tàgg ko ci bis bi taalal ko loxoom mu ñaanal ko jox ko ndigal mu sàkk woon man ma teew ci sëriñ bi jox ko ndigal ngir ma yàlla mi dara tawul dogal euh, ndogal yi ñëw ci ñun egsi ci ñun ñu sante ko yàlla nag euh, di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax yàlla la soob nag bu ko neexoon ñun ñuy wax sax sunu kàddu gi du àgg kon lépp yàlla la jàppal daal dañoo ñëw tey ngir jàppale ko ci bis bi euh, mu ubbee lu am solo nag loo xam ne nag ñun loolay sunu wàll moo tax mu taamuñ ci ànd ak ñun ngir ñu jàppale ko ci loolu ñuy sant bu baax a baax waa Dakar Buzz macha allah liggéey bi rafet na lépp a ngi leer lépp a ngi leer waaw. xam euh, est-ce que soxna yi euh, ci kuréel yi ba xam des fois du ñu am jafe-jafe. waaw dinañ ko am yenn saa yi ndax euh, liggéey boo gis muy turu yàlla wi ak musique bi ak leen nu mu mënti doon rek di nga ci am jafe-jafe. ndax ku jug di liggéey rek aw yoonu jub bëgg a liggéey bëgg dara faaw nga dégg dara waaw baatu ginnaaw daal mënul ñàkk faw ñu dégg ko ñaareel ba tamit jafe-jafe yi faaw muy am mënul ñàkk moog liggéey bi ñoo ànd waaye bu jafe-jafe yi extérieur dañuy jël mbégte ma teg ko ci kawam rek bu ko defee daal di koy mën a muñ waaw loolu may mbir mi mm, jërëjëf jërëjëf. ñoo ko déggandoo kàddu yi sell na rafet na am na solo ñu koy ñaanal yàlla wéral baat bi bu baax a baax a baax na defe naa wane fi lu dul taalibe te ab euh, taalibe Serigne mu dem fu ne rek war nañ ko ràññee ci bi ci waxin bi ci jëfin commune bi euh, merci beaucoup. Oumou Sow doomu Papa Thione la kenn waranteewu ko sa sœur la sa sœur nga ñëw fekk si tey. waaw mais c'est normal dañuy ñëw jàpp ci suma doomu papa la te ku ne xam na ne ñun suñu papa yàlla da ko natoo mu simple lool ku ne xam na ne Papa Thione lu ko waaye mën a waxal simplicité ci moom la fekk baax donc bu ñu ñëwee fekk si ko jaadu na parce que tamit sa doomi baay bu xewle da nga war a ñëw teew waaw noonu la ñuy xaar featuring seen diggante yéen ñaar ba xam yéen a ngi ciy waxtaan. way naa ko démb def nañ featuring incha allah jaajëf merci à toi. internet Dakar Buzz ba tey ah, ñu ngi fii euh, ci Sorano ki ma taxaw nag doom doomu Medina defe naa euh, teewaayam fii bettul kenn El Hadj nuyu naa la. fay naa la sama jigéen sama xarit euh, lu yàgg dëgg la na sa jàmm yàgg di bëggee waa Dakar Buzz yëpp kontaan tey Oumou Sow di fêté 25 ans de carrière am dama lay ñëw laaj rek yow yan qualité moo la gën a marqué ci Oumou Sow na da ngeen bokk Medina waaye it euh, ngeen bokk loolee mënut a séddoo muy euh, Serigne Touba Khadim Rasoul euh, teg ci ngeen bokk milieu showbiz. waa Oumou Sow la ñu bokk milieu showbiz ba pare boobu ba léegi mu koy rafetal ba pare daan na ma jox ay contrat yoo xam ni macha allah dama ci daan ñëw moom moo ma daan fay waaw kon loolu sax la beneen bi muy doomam maa Abidja taaw Oumou saw nekk sama fans sama fans la ndax fans club bi El Hadj Keita lépp maa ci la bokk te yàlla def na ah, ba may bëgg yàgg na moo tax ñaari wàlla laa fi teewee ba pare ñetteel bi muy doomu Medina ñeenteel bi ñu bokk Serigne Touba kon li ñu bokk dañu mënuñu ko seddoo moo tax fale ma teew def sama présence wane ni maanaam ñu ngi koy ñaanal yàlla lu moon ren yàlla na ko mën déwén loolu képp woon tax neexul nga génne fi benn tube bi nga xamante ne sénégalais dañ da bëgg ko seen bopp muy bin faal ma koy nuyu da passage sama maman boobu fan yi nag coronavirus bi lëmba dëkk bi xale yi di woy bin faal corona bi bu ma jege waaw waaw waaw waaw parce que xam nga rek dañ ko jàppee fonap mais lu sérieux la maanaam nañu jël matuwaay yi nañu nañu nañu xool li li feebar bi di bañ ñu koy bañ def loolu képp la parce que tamit benn heure bi nii euh, Sénégal xam parfois nag dañuy xafe benn affaire ba mu ëpp doole fi mu ne nii affaire bi jël na ampleur am na doole te tamit sa blague ba sa tue noo la demee il faut que gars yi jël matuwaay set sa bopp set sa yaram ba bare ar képp kuy sa mbokk ak ku sa famille nga xam ni maanaam di nga jël say matuwaay ak say jumtukaay nga xam ni feebar bi bu naree ñëw du ñëw loolu képp laa am lu ma ci wax waaw merci si merci beaucoup